ba tax na am na lu mu ñemewul waaw du def lu mu ma yónneewul message ni ma dañu xalaatoon nangam benn ma ni ko def leen wala ma ni ko bu leen def léeg-léeg mu am lu ma laaj te ma xam la ca aju ma ni pat et pourtant du ma bindaat pour laaj ma lu tax nga ni pat day dem rekk seet li mu ko wóor ni patt ji lool la mu jéem dugg ca loola waaw te lu nekk avec clarté la koy defee yàlla xam na ko ba ci démb ba ci démb waaw mu wax ma député yëpp ak seen coono seen taxawaay ak seen participation ci gàmmu gi waaw wax ma ku ci nekk ak yéeneem kenn desul waaw tabaarakallahu loolooy tax rek d'accord xëy na am na ñu am yéene ba ngeen ko commencé ca seen meeting ba ba ngeen defee woon géejawaay koo laaj rekk mun la sëñ Moustapha mooy sunu candidat ma di leen laaj fii ma tollu ak responsabilité bi ma yenu yenul ko mag ñi ndax mën naa nekk man candidat ci ay présidentiel bi ci des mooy ñi fi ne kan laa ci tollool kan laa ci tollool ndax ku mu manti doon mën naa génn ci sama biir njaboot ku la ëpp lépp te nit day xam boppam te góor gi moom ma ko waxoon mille bi ma defee sama candidature ndax dama xam ne bu ma ko koy yëgalee du ko nangu ma dem déposé ko mbokk mi ni ma ba ma demee palais de justice di di yóbbu candidature bi mu ne ma nit ñi dañ doon fecc ndax ni comme Serigne Moustapha day nekk candidat mu woo ma ba mu ñëw mu ne ma demal dindi ko dégguma ca baat ndax duma weranteeg moom waaw demal dindi ko man ma ne ko incha mu ni ma Abdou Diouf sax ñaan na ma ni ma moom daal day rus di xëccoog yow ndax yow doomam nga man ko parce que buñ ko seqee ma duma ko mu ne ma mais loolu taxul ma wax la ko man maa xam ci réew mi lu nga xam ni trois mandats sax réglé wu ko te may yëg ni ku jël yëf yi def benn mandat te réglé wuloo problème mu sénégalais yi dinañ la saaga mun ma tëyew ku la saaga dem safara waaw mu kon nag dindil sa candidature bi ci des mooy ñi ngeen donn na Cheikh nanguwul woon ay njaboot yu boppam dëgg di meelewu ci yenn yi waaw mu ne ma président Mamadou Dia bii waxoon naa ko ko ba muy commencé ak Senghor ni ko tee nga bàyyi parce que comme yow ci tariqa tijaan nga bokk te sama turandoo am na lu mu nanguwul waaye mu ne ma booba yeneen i sëriñ ña nga toog ci këram di ko xaar pour lu ma ko wax bu ñëwee ñu dindi ko ca loola nee na mu forcé ni day dem defante jeeg Senghor ba ñu denc ko Kédougou waaye nee na bi mu génnee prison ñuy waxtaan nag mu ne ma man daal bu ma yëgoon la nga ma waxoon lay def ndax ca ca la sama jàmm nekkoon waaye lu ma ca rëccoon nag ci sama digganteeg yow bëgg naa ko dabu ak sunu doom ji ndax dégg naa discours ba mu def ca Thiès mooy 93 ba ca place de France waaw dafa mujj ñaan góor gi sax ni ko dafa bëgg ma ñëw nuyu ko ca këram waaw góor gi ni ma jëlal Malick mbay nga jël Serigne gaay waaw nga jël ñoom Khalifa Sarr ñooñu nga xam ni nit ñi miin nañu seen way jur yi ci man nga ànd ak ñoom nga nga dem nuyu ko bi ñuy ñëwee ndeysaan léeg mu jox loxo kenn ni kii kan la ma ni ko kii mooy Malick Mbaye doom walla ci njaase mbay bi daan ànd ak góor gi mu ni wax xayortu mu daldi di nuyu ni ma kii mooy kan ma ni ko kii mooy Serigne Ndiaye doomu ji Malick njaay bi nan ànd ak sëriñ bi mu gësam loxo bi ni wax xayortu waaw mu daal joxewaat loxo ni ma kii mooy kan ma ne ko kii mooy xalifa Sarr doomu Abdourahman Sarr bi naan ànd ak góor gi mu daldi koy jël taf ko ci boppam waaw ni ma wàcc nga ku sa bàyyi ànd ak ña mu yëdda doon àndal nga xëy ànd ak seeni doom wàcc nga waaw waaw wallaay ndeysaan keroog wax na lu ne moom président du Dia encouragé ma ni ma noon la ndax sa baykat ñun li ñu génne moo ñu ca génne waaw kon nag erreur boobu duñ ko def deux fois waaw benn yoon rek lañ koy def waaw kon nag na nga taxaw ñun luñ la mën a jàppalee dinañ la ko jàppale waaw ko defee kon nag loolu rek moo fi nekk ku ne xam nga sa nit fa mu jaar ak yow moo tax biñ ma nee délégation président Ablaye Wade ñëw na ba fii ci résidence bi tabaarakallaahu ak yóbbante ya ñu indaale ah wax kàddu ya ñu wax yépp ma ne ah, moom de ku xool li woon démb sa xel war na man dal waaw ni Ablaye Wade de mu toog ba ni président de la république bu Sénégal ak liñ ko wan ak liñ ko dugal ci prison nga xam ni bu dul woon sunu fayda ak sunu taxawaay waxuma la nekk président waaye du génn sax prison man maa la ko wax waaw mu mel ni nag kon coono boobu moom la ñu jël teg ko ku mel ni Sonko parce que la ma wax ca anniversaire ba ni jàmbaar la gor la moo leen dérangé ak la ma tudd Pape Alé Niang moo tax dañu jóge ci anniversaire bi rek ñu arrêté leen ñoom ñaar waaw boole ca Cheikh Bara Ndiaye waaw mais fekk na yooyu yëpp occasion la pour seen boroom liggéey ndax lay ñëw moo gën di farata waaw bu ko defee rek kon xamuñu stratégie sax waaw ma ne ko xamuñu sax stratégie waaw dan nga gis ay nit yu jóg te bokk ci yeewi askan wi waaw ni dañuy seeti Sonko ca hôpital ba bu ko defee bu ñuy ñëwee mu daanu daanu lu crise waaw mel ni mënu wax parce que la ko intéressé wax na kook man ba noppi su ko defee médecin yi nii leen ah dafa nekk dans le comment foog ngeen may ko ñu daal di jógaat dem fekk moo ci bëgg loolu waaw bu ko defee kon nag yooyu yëpp ci lu ñuy nettali rek lay mujj man maa leen ko wax waaw nañu tenté ba tey pour éliminer ko définitive xam naa loolu xam naa lu ci nekk waaw te yaaya ngi nii seede la ci man cheikh a ngi nii seede la ci man léya ngi nii seede la ci man cheikh jaxate ngi nii seede la ci man ci mbaaxu yàlla ci mbaaxu yàlla incha allah waaw ba daanakoon nag ah, mu ngi naaj cours bi sax sorewul mais daara ji du jeex mais fii ñu toll nii lii la réew mi laaj waaw nit ñépp ngi jonguru li ñu gis def leen déranger te ñemewuñoo tudd ndax ay kilifa ñoo tax dama xam ni boo ko bàyyee noonu ñoom itam ñu continuer noonu yaakaar bu tas boobu loolu baaxul waaw moo tax nag ma jël sama responsabilité parce que damay wax ni sunu boroom sunu boroom du xuloo sunu boroom du xuloo day faj ndax day fekk lu mu ko wóor ni keneen mënu koo faj moom rek moo ko mën a faj mu faj ko et puis c'est tout mais du xuloo xëy na nag ku ne mën nga ñoo dëkkal fu ne maa ngi gis sax ñuy bind xam naa bu Mansour jógee en tant que journaliste nekk ci leeral TV mu wax leen ko ndax dañu bind ci seen annonce ci suba ni man damay chercher électorat bu Sonko lu ma koy doyee hmm. man sama électorat benn tolluwul ni moom di kon lu may demeti pour wuti électorat bu bu Sonko mënul nekk moom bu ma soxlawul man duma ko soxla te moom xam na lool waaw waaw loo taxoon bi bi mbokk mi ñëwee ni ma Sonko moo yónnee nee na nga may ko ay carte pour gàmmu gi ma xam ne xam na ni foofu la intérêt nekk ma boole Cheikh ak oustaz Cheikh Sarr nekkoon na leen wutal ay carte te wutal leen ay laissez-passer ah. mu yónnee délégation bi muy yónnee ñu ñëw fii te bokkul ak délégation bi ñëw ci Yewwi Askan Wi ndax nit ñi Cheikh Begg bi sedd la ci waxtaan na ci ak moom fekk boobu ñuy waxtaane affaire candidature yi mais defe nga ni réew mu toll ni présidentiel ñun la soixante candidats ñooy xëccoo yëf yi loolu fu mu jëm te waa ànd bokk yaakaar genn wàll ga yépp ñii seet si nañ ma ñii yónnee nañu ma ndaw man lañuy déglu ni fu ma jëm yóbbaale leen waaw moo tax rek ku yóbbu tey lii marché mu ngi marché xamuloo waaw bu ko defee rekk bu la yàlla defee nga jeexal danga koy nangu tudd naa fii fii ñeent ku ci paase ñeent gëw nga dem fu sore Senghor fi jiitu woon ab du Diouf moo ca topp ab lay Wade topp ci mag Macky sàll moo clôturé même régime bi du jaadu pour mu continuer ti li ma wax xam naa ko dafa tolloog Sénégalais yi nag ñu ngi noonu waaw mais man li ma leen di wax xam naa ko waaw ngeen baal ma nag baat yi léeg leen dama cay toll waaw laaj ko capitaine mi yu ma ngi toog ma ni capitaine sa turandoo moo ñaf Senghor ma ni ko man mii di sa mbokku daay daara maa ñaf Abdou Diouf ma ni ko lay Wade nag parenthèse rek la moo tax jarul woon yenn yi ma ne ko waaye kii fi mujj nag ma ne ko sa cër la jëlal say disposition moo tax mu wax leen lim leen wax démb ni waxal li nga bëgg rekk wax na dëgg waaw kon nag dina wax ak yéen waaw man dinaa wax ak ñi ma war a waxal mën naa prononcé ci candidature bi mais jarul yàkkamti dafa am liggéey bu ñu bëgg a yeggale tuuti rekk ndax ku ñu xam foo jëm doo fa yegg lu dëkk mu mel ni kon nag sunu gan ñi da ci am ñoo xam ne léegi ñu dellu ci seen liggéey fekk ñu wax yi ñu war a wax yépp ba noppi waaw ko defee ñoom ñu yeggale seen liggéey ñu nit ñu yéggale sunu liggéey rek waaw mais changement yi par A ou par B mu ngi ci kanam di ñëw mën na metti nag comme mën na bañ a metti ndax wakafa allahu almuminina alqital waaw gàmmu gi am na ñu jëloon décision bu ñu nekkee ci biir gàmmu gi ñu fekk ñu fekk seeni fetal ak seeni lacrymogène décidé woon nañ ko waaye fekk na may jël nañu suñuy disposition mag capitaine suñu soldat yépp a ngi ci biir tànk waaw waaw sunu soldaa yëpp ñu nit ñu ngi ci biir tànt te ku ci nekk nag lañ la war a jox jox nañ la bu ko defee kon nag ñoom duñ ko ñeme ñun ñu di ko ragal waaw te comme dañ doon soow 16 février naan juróomi policier bi yoon bu ñu xam ñaata waaw waaw ko defee kon nag ñoom ñoo war a yërëm ñi yor danga ma kayit gi rek ak bindu kayit waaw kay ñoom ñoo war a yërëm ñi ñu yor parce que ñoom it sonn nañu gendarme yi sonn nañu policiers yi sonn nañu militaires yi sonn nañu waaye itam jigéen bu ci bañ teñ ji sa jëkkër ba yóbbu nga téye ko